ndax mës a soxla dara luñ ko mës a jox tegal foofu la lay wax kon ak tabe foofu la mën a ndax wax na ne kanzil kitaabu wal xadiis wal aja wal adab laa jamu fiddatin wala jamu saabu bi xidmatil kitaabi wal xadiis yasbutu laa bi zahabin wa ruusi waaye li ñu tabe tabe nag ñépp maase nañ ci xam ne weeru koor masaan ak ak tabem da yokk lool teraange sax moo ko daa jël di ko joxal boppam nit ñi daal ko def ci biir kër gi ba ci penc ba ci biir dëkk ba fu ne lu nit masa laaj ñi ko xam dañ daa wax ne bu weeru koor dugg loo ko laaj mooy la xaa danga koy waajale gan gu tedd gi bu demee ba bëgg jeex nag moo ne la kenn tëddatu dara ndax gan gi tàggoo kon lii rek mooy li am ci loolu kon di ñaan bu baax rek lii nga xam ne suñ doon defe na ko taw tawfeex ndax jabootu Sëriñ Tuubaa gi naka jekk xam ngeen fu leen weeru koor ma sa fekk ba ci seen dëkk yi lu mu jege jege dañ koy bàyyi ñëw Touba ngir xam ne le Cheikh Abdou Khadim Mbacké daa wax ne Cheikh Mouhamadou Moustapha moo ko wax ne ko jaamu yàlla baaxee na fu ne waaye sakk na ne Touba loolaa waral nee na muy koor ak koori Tabaski gàmmu yëpp Touba la ko daa defee Cheikh Mouhamadou Moustapha nag day mel ne Cheikh Mouhamadou mii nag moom day taalibe bu làq mu ay sëriñam di doom ji làq ngërëmul waa juróom ba yàlla def mu tërbiyoo ba nekk Sëñ Tuubaa moo tax ko ci xol yi ñëpp ci nangul noonu moo ko doon fàttalee keroog ci bi sëñ Cheikh mu sëñ Saliou di ubbi jumaam ji jamono yi Cheikh Mouhamadou Mountakha di door a ci jotaayu Sëriñ Tuubaa bi wax ne la na Omar liñ ko defaloon ci bi nekkee ci xilaafa ji loolu lañ defal ak Cheikh Mouhamadou Mountakha mooy ñëpp maase rek ci nongul ko xam ne bu li ahli sama war kul yaxtaaru kon loolu rek mooy li am ci jotaay bi kon daal sant ci yàlla ak sant Serigne Touba ak góorgóorlu ci ci Pastef ba nga xam ne moom la ko Cheikh Mamadou Mountakha defe ndax man yàlla def na am naa ndimbal tawfeex muy lu ma jomb ba mu ko xalaatee am yëg man la ci jëkk a waxal mooy at mi doon doon Serigne ko waxee it ma joxe ci sama xalaat waaye xalaat ba mu ne ma kat. yéeg-yéeg bi ma ci am daal nii laa ko bëgg a defee kon day mel ne kon li ma gëm mooy lu bàyyi ko ci Touba la muy suñ jotaay bi te foo toogee moom di waxtaan nga dégg yéeg-yéeg bi mu ci am ak ni ko yéenee nit ñi da nga xam ne yéen gi mu leen ko yéene ndax man la santoon mu wax Cheikh Mouhamed Mourtada ñoom ñii ak sëñ Moustapha Cheikh bu laat ak lépp ci bokk yi ne bu soñoon ñëpp ñëw di ko ànd ak moom waaye ñeen ñenn ñi xam na ne am nañ ngànt waaye ñi teewut tam ñi leen di wóotu di leen fi teewal kon jataay bi jataay bi ko ñor la boo xam ne yàlla def na it mu may defal ndimbal te yàlla na yàgg fii may toogee nii sax moo santoon wax Serigne Moussa Nawel ne ko dawaa bëggoon Bachir toogee nii sama wetu nday joor moo tax ma di ci sàkku ngërëm moom ngir xam ne alxayru fi maxtaarahul muxtaaru laa fi lisi nufusukum taxtaaru ba ñuy ñaan mu yàgg ko jiite lu yàgg lool te yàgg see dajeeg ay ndam ki tawféex day see ngërëmu Sëriñ Tuubaa li nga xam ne moom la ci sàkku ndax ñun taalibe Sëriñ Tuubaa yi kat loolu sëriñ bay jaxat di wax naan sëriñ bi di sa saa koo rek sama julli faw man bu ñuy woor a ko julli ak wir di mënëb ko man ñun ñëpp jaamu yàlla gi dañoo xam ne moomuñ ko ba sañ koo joxe ndégalu yàlla la moo tax mu andi ñu fi waaye buñ ko jaamoo ba noppi nag noppi lañ ca lépp defaat nañ ko addee Sëriñ Tuubaa tàbbal ko ceel Cheikh Abdoul Ahad Mbacké daa wax ne boo bëggee bari le te yor lu néew te yor kooku ndox te bëgg jàpp bëgg bëgg a sangu bëgg a bëgg bëgg bëgg duy da fekk du jeexle mooy kooru géej nga sotti kenn mënatul ca génn kon ñu itam tuyaaba ji ñu ciy def lépp ñu du ko gën a sellal te yaakaar na ñëpp am nañu yëg-yëg kudu gi ci jataa bi jël àdduna sànni ci bit ndax Sëñ Tuubaa kat neewoon na du fecc lépp saako. loo ko boolee rek mu bàyyi la moom loo ci rax bu ci àdduna duggee mu rax mu bàyyi la moom kon ñu ngi siyaare ñëpp di siyaare suñu kilifa yi teew yëpp di sant Serigne Youssou mi jiite daayira Hizbut Tarqiyyah moom mi nga xam ne jëwriñ ñoom ci suñu atu ba Serigne bi joxe ndigal wax ma ko ne naa ko mu ñëw ci moom ba mu dikkee mu boole ko man ñu ànd taxawu ko lépp ba at mu njëkk ma lépp rafet kon yàlla def ab liggéey mat Serigne Youssou itam di jàmbaar ndax. mbiram mbirum Sëriñ Tuubaa rek ci mooy tayam ju de day gàccal démbam waaye ku ne xam ne la jëwriñ ñoom doon doon jàmbaare jàmbaare ku gis liggéey bi fi ko yóbbu da nga xam ne bu benn yóbbu na ko fukk te moom xaalam dafa dëppoo ko xaalu Cheikh Mamadou Mountakha mooy amut noppalu amut wàcc amut guddi amut bëccëg loolu lay dund guddi ak bëccëg soxlawul dara it lu may liggéeyal Sëriñ Tuubaa ngërëmu sëñ bi kon ñu ngi koy ñaanal di ñaan ñu topp ci ginnaawam yàgg ànd ci liggéeyu Serigne Touba bi nga xam ne man damay ci amaat sama ndigal bopp ci Cheikh Mouhamadou Mountakha ci sama diggal ñoom ndigal lu lu sori lu xóot loo xam ne lu ma jàpp te fasoo ko la wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. waaleykum salaam wa rahmatullah jërëjëf Serigne Bassirou Mbacke moom Serigne Abdou Khadre ci kàddu yi am solo yooyu kon xam naa ne li ñu cërale ci waxtu mat na ñu jébbal kàddu gi bàyyi Mansour Seck ci fàttali tey kuréel gi toog mooy kuréeluk. Euh, Tivaouane ñoo fas yéene jàng euh, kuréelu Louga ñooy gunge noonu bu ko defee programme bi ñu biral ko di leen jox dox daje ëllëg wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. bi wa rahmatulahi taala wa barakaatu. ñu ngi nuyu ñi ñuy teewlu ñëpp ci bis.